asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 15 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëy doore ko journal ba nag daal bu mu xëy tey ka mu ñu andil mooy Ama Balde boo xam ne day mu nga yor ay bagages sam di longueur wala mu am ku muy yërndu sunu lamb nag nee na Ama Balde day diggante Modou Lo ak Eumeu bi war a am le 28 juillet boo sàgganee day. moom lay xaar comme nag moom daal Modou moo gën a nekk ci xelam day est-ce que du xaar ndax daal ramas bi moom sunu laam jàpp na ne day ramas daal la ne bii daal moom la ama di nekk leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw mooy Omes Diagne di ba entraîneur moom nag ka mu xëy di waxal moo di Modou Lo ak Eumeu Sène wala boog Eumeu Sène saxal moom la xëy di ko dànkaafu nee na ko na teey moom Eumeu Sène daal Omes nee na ko teeyal boo ko defulee day la amoon 2014 mën naa amaat de te nee na sax moom wàllum pression bi féete omes mu ne féetewul ci kenn ku dul kii nga xam ne moo di Eumeu Sène parce que nag moom jàpp na ne day pression bu dee am moom mooy amee pression bi ndax Modou Lo da koo daanoon loolu mooy waxi Eumeu Diagne combat Lac de Guiers 2 ñëw na tamit wax ca la nga xam ne nii moom moo di xalaatam la mu xëy di wax nag nee na favori ba day bu amee moom Eumeu la mu jàpp daal nee na Lac de Guiers numéro 2 mooy mooy favori pour cent lii mooy waxi Eumeu Diagne tey ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye jamono jam koy jox nag 60 pour cent ci ay faveur moom Eumeu Diagne kii nga xam ne nii bii day moom mooy président fans club bu Boy Niang moom daa mel ni loolu omes di wax moom intéressé ko wala ñu lugu ko muy Xalifa Ndoy Xalifa nag nee na daal li leer ba leer day moom boo ko neexee waaye li am ba des daal moom jàpp na ne day mbërëm mooy favori cent pour cent te nee na buñ ca yeggee moom Lac de Guiers de lay xam liñ ko wax bu baax a baax moom Xalifa daal jàpp na ne ñoom li ñu nar mooy jàpp kii di Lac de duma ko ba pare door koo daan loolu mooy waxi xalifa ñu ne ko préparation mu ne nañ daan préparé dong leneen duñ ko fi def lañu daan def daal la ñuy def amaat ndam rek moom xalifa loolu lay wax ñu ne ko léegi nag yéen supporters yi nu ngeen taxawe mu ne li fi mu nekk nii day sunu mbir moom boo bëggee dégg dëgg daa jàpp ne wokkatu bu daje ak gestu la ñu ne ko lu tax mu ne arène national bi nga xam ne day dañ ko ngee naayoo nun waa Pikine nga xam ne bu jëkkoon su booy nag amee combat dañuy luye ay oto génn xaalis fay waaye bi yoon moom loolu du ci am dox la ñuy def ndànk dugg ca stade ba ne na jàppal xaalis yañ daan def ci kaar yi bii yoon ci ay bii lañ koy def ak ay tisat moo tax jamono jooju nag xalifa mu ngay wax ak Baye Ndiaye mu tëgg làmb ji ne na ko bàyyi dan la koy lay ñaan lii bés bu ñu yeggee le 13 juillet moom fexee la fexe ba midi incha allah nga ubbil nu porte arène ba nu dox ndànk dugg ca xaar suñu mbër Boy Niang mu ñëw jàmmarloog lag de lag de daan ko nu génnaat dugg biir Pikine moom xalifa moo xëy di wax loolu ñu ne ko léegi nag supporters yi loo leen di wax mu ne li muy wax daal lenn la caravane moom dinañ ko def biir Pikine nag fa wër jàpp ne daal Géejawaay Pikine benn la espoir la nii def la xam daal mooy lépp lu violence moom nañ ko ca dàq mooy waxi xalifa ñu bëri ko ci jàmm daal te mbërëm daan loolu daal la xëy moom di ko wax kenn koo xam ne ni moom ab daanam sunu lam na ne est bu yoon dina yomb muy kuwensa ak kuwen sa bu lamsaar suñu lam ne na jàppal kuwen sa day diggante mag jén kayre ndax na mu daan yombe yenn combat mi est-ce que bu yoon dinañu yombe ndax ki mu ko séqal am pànk la ci côté xeex te leen li ci des daal nekk na mbër moo xam ne day day bëre moo tax nag tey sunu lamb ci xalima ak Abdoulaye Dembélé daal xëy samp boobu laaj di ko laaj ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ki bëgg ndam moom ba mu ñor ko lool mu jaral ko lu ne mooy marle marle bu école di Papa Kane marle bu géejawaay sunu lamb ne ne day boo bëggee dégg-dégg fi mu nekk ni ci wàllum footing daal ci la ne ak wàllum musculation ak yoo xam ne daal yu mel ne ki noonu la wala boog dem ci place yi di wane boppam bu wér a a wér li mu mu man a wane boppam ci saison am di bu moom daal nee na bi mu am day saison bii nu jëm daal la mu ca bëgg moom mu ñu tabb ko meilleur lutteur bu Thiès moom daal li mu bëgg mooy toj saison bii nu jëm waaye keneen koo xam ne moom taxawal na combat espoir mooy Jax yëglikaay bi nag seetlu na ne daal Jax daa mel ni daal le 10 juin ci la fas tëgg jooju làmb mel ni nag làmb jooju daa mel ni ren de mooy nekk benn journée bi mu nar a tëgg boog ci lit avec frappe mooy li mu taxawaloog mooy diggante laadum bu écrit roog énergie ak jabel bu yoof sunu làmb xëy tey dinu wax loolu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb jàppal kii nga xam ne nii day mooy fils de Zallo mu ngay préparer combat pour le 9 juin sunu làmb xëy tey duñu ko wax waaye kenn koo xam ne tamit gis nañ ko muy Siteu bu Kaolack ca kër Mariama Sarr ca Kaolack daal sunu lamb wan nañu ko waaye kenn koo xam ne moom sunu lamb dañu koo won mu jàpp adversaire am wala ko muy bëreel dal di ko dëbbum col dal di ko kal wala boog tëg bu ko placage mu jaaxaan kooku ku ko def ñu ne Sadio Mané bu Sénégal bu Liverpool moom daal jam si milinaire ba mu bokkee équipe daal moom lay nattanteel ci wàllum bëri wan ko ne la ma la dàq bëri daan ko ci li bu rëy waaye Sadio Mané mii nga xam ne ne ni de Ligue des champions da koy finaalu dama bëgg ñëpp nañ ko ñaanal nag ni ngir yàlla nañu ko ñaanal Ligue des champions bi mu teg ci loxo waaye bu mu ca yem mu dem ca kaan ba ci Égypte mu jël ko andil lu ko fii ci réew mi comme ni mu def daal ren ci championnat Angleterre jël meilleur buteur ba Sadio Mané li ngay xëccoo lépp yal nañ nga ko gagné ballon d'or ba ngay xëccoo ñoom Messi sax yàlla na ci teg loxo ndax nag olof a ko wax lu gën a jege gën a yey te yaa sama bopp ma la gënal Talla Ndiaye du bañ naa la ay sénégalais lañu di ay africain kon saajo Mané yal na jël coupe d'Afrique yal na jël ligue des champions ballon d'or sax yal na ci teg loxo ndax nag kat Sadio Mané mi fierté la cim réew waaye rawatina réew mii nga xam ne nag fa la jóge muy Sénégal Talla Ndiaye ñaan gi neel amin bala ngaa fay micro bi waxal amin saajo Mané Sadio Mané yal na jël ballon door Talla neel amin amin salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaay jaajëfal di ànd ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour ma si ak sama mag sama xarit Chéri Teneng Babacar sa nuyu naa la. ay sa fay taay de Chéri Teneng bi rek nga may Chéri Teneng nga may may ah loolu moom mbégte la xéewal la macha allah am na solo ma koy nuyuwaat encore une fois moom Teneng wax di nuyu ñëpp ah, mais di nuyu internautes yi di la nuyu Chéri Moussa Niang waaw di la wax ne ñu ngi lay kontaane bu baax a baax di kontaane internautes yi. tey Babacar jàngat bi dañ koy ubbi ak ki nga xam ne nii mooy Ama Baldé ak euh, mu nekk ci xaarum combat booba léegi la lam tey xëy ne Ama Baldé fu mu toll ni moom dafa wékku ci combat royal bi nga xam ne moo war a am le 28 juillet diggante ki nga xam ne mooy Eumeu seen ak euh, kii di Modou Lo maanaam daal isi combat boobu lay xaar daal pour xam ndax adversaire bi mu bëgg dëgg-dëgg mi Modou Lo ndax mën na cee jotam déet waaw loolu suñu làmb jàngat boobu la xëy def tey muy loo am solo Ama Baldé parce que boo xoolee gëj na def année balance yaakaar naa de ay at a ngi chaque année moom lu métti métti dina bëre ndax mbër la bi nga xam ne ax lu làmb soxla la ko si fa mu dëkk muy Pikine ak doomi ki mu doon di Falaye balde ak itam maanaam moom mbër mi mu doon ci boppam moom Ama Baldé ak animation ba muy indi ci làmb waaw sans compter nag la muy drainer ci mbooloo kon defe naa ne làmb da koo soxla macha allah kon année balance am defe naa du neex waa làmb ren ne nag comme day xaar benn combat wala ci combat bi la wékku ah man na ñoom nañu jàngat waxee noonu mais man Babacar du ma jàngat du ma gisee noonu parce que li tax mooy que ni pour man Ama Baldé wu jaaxaaru ma ne Modou Lo kese la war a mën a ciblé si làmb daan da koy xaar wala nangam xëy na kay moom naroon na sax jël combat mais xëy na yàlla def promoteur ya ñoom ñoo xam lu tax yeggale wuñ ko ndax digganteem ak tafaatin juboo amoon na ci ci li ñu mujj am am xam xam comme ay xibaar mais yàlla dogal na lool loola sottiwul bu sottiwulee nag Ah, kon li fi des mooy mu xaar mais kantaan nag ne Modou Lo kese kese la war a mën a xaar wala ci combat Modou Lo machine lay wekku ah loolu pour man su ko defee est-ce que staff ba sax li leen war def nañ ko dafaatin mënu fee di adversaire de taille xam ne su digganteeg moom ba tey mu ngi koy réclamer. mais mooy Balla Gaye. waaw ñoom ñu ne dañuy xaar Balla Gaye mais pour wax la ne rek la Ama Baldé pour man bëri ay adversaire mais mais mais adversaire am mais a bëreel ci làmb li ci des tamit ñu di ko wax mooy que moom mbër la yegsi na fi mbër yi kon li des daal mooy ñi war a bëri ak moom itam nañu ko jël bëri ak moom parce que dafa bokk si lamba ah. combat ma ngi bëgg jafe de Babacar boo seetloo combat bi daal yaa ko bu combat baa ngi bëgg dañ koy daw ah, doy na waar de daa daa daw ko nag moom yaakaaruma ko parce que ñoom ñi nekk ay mbër yor xam ne kii adversaire la pour man waruñu ko mën a daw xanaa kay leen laa foog xëy na na am problème de casse dinay am wala problème mu euh, xool foo war a aw ak yu mel ni ki noonu waaye daw bi moom wala ragal bi moom duma ko gëm waaye nag loo si mën a dégg daal combat moom warul woon a jafe xaw ma nag lu ko war a jafeel olof nag nee na sëb la la ko bënd nga ca biir waaw dañuy jógee ci Ama dem euh, seeti ki nga xam ne nii mooy euh, Père Omez Omez daal di ñëw tam ci combat li nga xam ne mooy royal bi wax ci pression bi ban côté lay féetee moom jàpp na ni pression baa ngi ci ay épaule Eumeu Sène moom mi nga xam ne tey jii mooy roi des arènes di génn première sortem war a tamit jël revanche ci ki nga xam ne ni moo ko daanoon te nee na Modou Lo tamit mën na am mu réitéré la mu defoon 2014. waaw Omez loolu la xëy wax tey jàpp na ne la amoon 2014 na mën na amaat. jàpp na ne tamit ci côté pression mu ngi ci mbaggi Eumeu Sène moo ëppale pression loolu nag euh, jàngat la gis-gis la xëy na ci ci benn côté mën nañ nangu loolu parce que comme Moodu Eumeu da ko daanoon non du moins Moodu dafa daanoon Eumeu 2014 ñu war a bërewaat euh, Eumeu di jël si ramassam loolu mën na ne pression si moom waaye mën na nekk jom lu koy yokkaat jom ndax day bëgg a fayu te comme li may wax rek am na loo xam ne Eumeu Sène ko waxal boppam kenn waxalu ko ko moom moo ne ni ñu ko xale buy jàng bëri koy daane kon moom nangu na ne bés boobu lañ ko daane yomb na trop kon yaakaar naa suy dikkaat dina dikk ak jom pression nag des fois pression bi nga bi bon daal mooy bi nga xam ne dañ day nekk sa kaw ba nga xam ne mën na yóbbu sa xel wala mu wàññi sax sa doole waaw mais pression boo xam ne moom dalay yokku jom yokkul euh, courage yaakaar naa ne boobu baax na te xalaat na Eumeu Sène pression boobu la war a mën a yóbbale ci combat bi yaa ngi dégg nag mooy combat boo xam ne nii méttiwaayu combat bi rek loolu la loolu moo ci feeñ moo tax yooyu yooyu yëpp ñu mën ko ci wax même loolu tamit dama naan da ciy am pression parce que li tax mooy moom dafa ñàkk combat te bëgg duggaat fi nekkoon bëgg a jël couronne roi des arènes te Eumeu Sène yor ko kon ñoom ñaar pour man pression bi fi mu nii su ma doon xaajal dama leen koy xaral ci digg bi de ku ne yóbbu ci côté a boo xam ne ñoom ñëpp am pression de Aïssatou. nekk dem la sa wàll Babacar ci sa ci pression bi nga séddale noonu mais ñu dem ba tey ak euh, ki nga xam ne mooy Omez mu ñëw ci Lac de Guiers 2 di ñu xamal ni foofu tamit euh, favori bi moom jox na ko ki nga xam ne mooy Lac de Guiers à pour cent. waaw 60 pour cent la wax loolu ba tey. xalaatu technicien la wala gis-gisu technicien ndax OMS loolu la waaye mënta wax mooy technicien la ndax ku ne gis na diggante ak Tapha Tine jaar ci côté entraînement gis nañ ko équipe de Dakar bi daaw bokkoon na ci staff bi jël drapeau am na xam-xam si lu muy wax 60 pour cent yi ah euh, ko koy nangul mais man itam am naa ne ah, mën naa xalaat ne que mën naa indi 55 pour cent ci faveur xool cat yaakaar nañ ne moo war a mag Lac de Guiers 2 en même tamit bëri na ak ay yenn mbir yoo xam ne parce que ku daan Yékini rek loolu doy na te Yékini ñaar defet yi mu am ci lam lag ak Boy ak Balla ñoo ko teg kon xëy na favori bi foofu mën nañ ko ko indi booy Niang nag li tax mu nekk outsider bu dangereux mooy lancé bi mu nekkee yaa ngi dégg moo tax daal loo ci mën a dégg moom même Lac de Guiers bu dee euh, favori si si papier yi ci sunu xalaat ndax am na ñoo xam ne mën nañu bañ a gisee noonu mais Boy Niang outsider bu outsider bu dangereux la nañ ci bàyyi xel waaw ba tey euh, bi ñu ko jafee outsider moom ki nga xam ne ni mooy Khalifa Ndoye di président fan si club am moom loolu mel na ni du ko du ko safu ko daal parce que moom nee na fu mu toll nii comme arène nationale ba daal la ñuy bëree combat bi ñoom midi daañ feesal stade bi dell te woote non violence parce que wóolu nañ seen mbër te xam nañ li seen mbër di andi jour ba waaw xalifa ñu koy nuyu di ko siyaar moom mooy président fans club bu Boy Niang waaw taxawaay taxawaayam tamit rafet na ah, waaye moom li mu wax moom comme ñun ay eh, favori yeeg ay nangam yu ñu wax moom gisul loolu moom jàpp na ne mbërëm mooy favori à cent pour cent moom sax waaw moom loolu la gis jàpp na ne bés ba ñoom la booy ñang la ko war mooy day jàpp lak du ko daan ko ñoom loolu la ñu gëm te nee ci loolu la ñuy liggéey parce que jàpp na ne mbërëm ci côté yëpp pare na ci waaw amul xam ne daal dinañ ko moytu ci côté stade bi tamit wax na ne na leen promoteur bi ubbi làmb jëpp midi na ko Baye Ndiaye def ngir ñoom ñu teel a ñëw ndax dañ daan fay seen xaalis di ut ay yoon nag dinañ xaalis boobu dañuy dox dugg biir Pikine ndax dañoo ko gënaaw stade ba mm-hmm. loolu moo lay wan ne kon làmb yooyu daal jàpp loolu moom dañuy wax ne que daal xam naa ne arène nationale moom. ah ñëw doo am place. Ah, le waaw mois de juillet moom dina vibrer lool lool lool lool lool xaw ma lu fa léegi ni ko a def pour le 15 juin waaye xalaat naa itam bu fa Baye Ndiaye ñëwee itam pour mois de juillet di nga gis lu doy waar non violence boobu muy woote tamit na ko ñëpp bàyyi xel ah, parce que sport la def dafay am favori wala boog dafay am fenk rek fenk yi yooyu nañ ko ci sóoraale nga xam ne supporters yi ànd ak dal ñëw dem ñibbi feete sa ndam ku ñu daan tamit nga muñ xam ne beneen bés am na budul bés boobu. waaw dañuy des arène nationale si combat bi nga xam ne moom la fa kii di indi muy ligg Luc Nicolaï le 15 juin diggante Quench ak Diène Kairé ñu laaj euh, tey suñu lamb tam def jàngat foofu ñu laaj ndax kii di Quench tey mun na jaaxal kii di Diène Kairé. waaw loolu day laaj la bu jar a laaj Quench nag yaakaar naa su ma juumul benn defet la si ci làmb yaa ngi dégg. premier combat am Diène Kairé yaakaar naa am na ñaari defet. maa ngi euh, ñu nekk ay xale yoo xam ne seen diggante yàgg nañ koy wër ñi naan war nañoo bëri ñi naan waruñu bëri ñu mel ni ñuy moytoon te ba yàlla def lig Nicolas dajale leen loolu nag su amee Aysatu ndax jiin ndax Quench mën na lijjanti jiin loolu question la waaye li am ba des daal mooy que ni Quench moom kat la bëree moom mën na ko lool xeex nag gisaguñu mu def ko en cent pour cent si lam par rapport ak jéen jéen gis nañ ne day xeex en même temps day bëri kon nag li leer ba leer daal mooy ñoom ñaar seen combat boobu am buñ koy ci moytuloo Quench mooy côté xeex bi ndax jën day xeex te day bëri euh, jën itam lañ koy moytuloo mooy ah na sóor bëre bi bu baax a baax parce que Quench day bëri te gis nañ mbër yi mu jàpp yëpp balaa leen a bàyyi jël la am na kon nag jàppal ne daal ndax dina mën a lijjanti jën loolu bés ba ca lay leer waaye daal combat xale bu dangereux ngi noonu combat bu doy waar a ngi noonu Aïssatou Faye non nañ yónni yàgg waaw kay comme ni nga ko waxee ñu yónni yàgg rek bala 15 juin incha allah ñu jeexal ak li nga xam ne ni moom la Jaks andi ren benn journée dong la Jaks annoncé gum muy le 10 juin diggante ki nga xam ne mooy Jabel ak euh, Laadum bu eh, Rock Énergie kar mu mel ni euh, kii di Jaks moom xaw na teggi tànkam ci lutte frappe bi. waaw Jaks moom boo xoolee li mu gën a privilégié sax mooy lutte simple ah waaw ren sax xëy na li mu ci soxla woon defaku ko ci waaw parce que saison bi ni mu demee la ak jàppal bàyyi di nekkoon ci biir combat arène seegu buñ gis ne fisale muy jabel bu yof ak laadum mu nekk combat boo xam ne ay zone espoir lañu di ñaan yàlla rek yegg ci ak jàmm jak suñu koy nuyu encore une fois di wax nekk daal moom itam mu ngi bay waarama parce que mu ngi ñam ci avec frappe bi te li simple bi tamit mu ngi ciy def li ci war a def kon daal nañu xaar pour mois de juin boobu tamit dinañ gis combat bu neex a neex ci diggante jabel ak laadum bu rok énergie waaw mbokk yi suivre Leewtoo TV li leen andiloon tey ci seen revue de ren ak jàngat bi yëpp di nuyu Mame Talla ci caméra bi ak euh, Ousmane ci montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV bi yëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi jël sa connexion di suivre Leewtoo TV chaque jour di ñu conseiller di ñu yokk di ñu dolli di ñu delloo si parce que loolu mooy euh, li nga xam ne ni moo ñuy dooleel moo ñuy tax a defaraat yu bëri ni ñu leen di béggee rek ci seetaan bi Babacar waaw Aïssatou day ku leen a sangul sa taar la bëgg te defe naa ñoom ñu internet yi ñoom loolu lañ ñu bëggal moo tax euh, lu ñu bàyyi loo xel dañ ciy bàyyi xel lu fi yàqu tamit wala lu fi normal tamit dañ leen koy jéegu loo xam ne nit moom matul lu fi baax tamit xëy na yàlla moo ñu dimbali ba mu baax rek di leen balu àq bu baax a baax a baax li leen fu ñu mën a ne si àddina bi rawatina ñi nga xam ne dañu nekk ba bitim réew yaa ngi dégg ku mel ni Balla Gaye waaw Balla Gaye ndeysaan di taal bi suñu Babacar si nekk ba Italie di soppe Balla Gaye de maa ngi koy nuyu di sama waay moom tamit di ko nuyu di nuyu waa Italie yëpp xam nga ñoom Ndongo Fall waa Espagne ñoom Libaas maam Libaas Lo maa ngi koy nuyu depuis Barcelone ñoom tuuti yaay Sarr Espagne sama xarit tamit Habib Ndoye ak doomu ndeyam Youssou Ndoye Habib mu ngi États-Unis Youssou mi ngi France di basket di leen nuyu ak sama rakk Saliou Ciss moom tamit l'international di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ñëpp Baye a bi ah, fu ñu mën a ne ci bi rek ñoom David Louis ak gars yi bitim réew fu ñu mën a ne rek nuyu naa leen ñoom Khadiros Ndiaye mais Iba ñu ngi koy nuyu ah Babacar célibataire yi dañ leen di Iba dañ <laughs> mu ngi waaj ne ma léegi mu takk soxna Iba léegi mu takk ñu ngi Baara waaye di nuyu tamit ki nga xam ne mooy sama turandoo Mbaye Tyson ñu gën ko xam ci ñu ñu waaw ñu Babacar Diop ñu gën ko xam ci Mbaye Tyson waaw ndeysaan borom jàppal ma jàpp man ngi nuyu bu baax a baax Mbaye Tyson di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii daal ñu ngi ñuy seetaan waaye Mouhamed Ndaw Tyson tamit dama koy nuyu bu baax a baax parce que daf ñuy faral di seetaan bu bëree bëri ak ñoom Yékini ak Bombardier ak Balla Gaye ak Modou yëpp nuyu nañu waa làmb ji daal di balu ñëpp ak Aysatu di ñ ñëpp jàmm di wax ne xol bu sedd yaram mu sedd yàlla na ko yàlla def ci jàmm su si Sénégal waaye lima ma ñaanal ci Sadio Mané tamit yàlla na nangu Talla Ndiaye Siri Lébu da ngaa waaru tey xanaa. <laughs> waaw dañ leen jox rendez-vous suba incha allah.